auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk internet yi nga xamante ni yéen a ngi ci suivre ci Lansarr TV seen bopp seen xarit professeur Ousmane Ndiaye ma ñëwaat ci leeral rek ci ay tegtal ci wàllu xam-xam surtout ci période bi ñu nekk ñi nga xamante ne ñu ngi sóoratu yaasin eh, ñu waxoon leen ne rek dinañuy ànd ak sóoratu joxe ci quelque njëriñ commencé woon nag di ko def par aaya tey nag ñetti aaya ñuy joxe wi laqad xaqal xawlu ala aktharihim fahum laa yuminuun inna ja'alna fi axnaaqihim axlaalan fa hiya ala asqaanihim fahum muqmahun wa jaxalna min bayni aydihim suddan wa min xalfihim suddan fa donc ñetti aay yooyu tey moom la ñu ñetti aay yooyu ñu wax boo leen boolee bind leen juróom-ñaari yoon ñetti aay boo leen bindee ba mu jeex muy benn boo bindaat ñetti yoon mën ngay def bi bind leen sept fois juróom-ñaari yoon sept fois soo leen bindee juróom-ñaari yoon nga def leen téere nga def ko téere benn téere bu ndaw rek takk ko sa ndigg donc yàlla dina la muccal ci lépp loo xam ni luy lore la wala loo xam ne ay la wala xam ne musiba la waaye mag ñi dañ daan wax ne surtout koo xam ne day tukki nekk ci yoon te bañ ko ko dogaale waaw wala tukki bi am ay yàqu-yàqu waaw di nga mucc yàlla dina la muccal tukki boobu doo ci yoon bi du dog kenn du la dogaale te di nga àgg ci jàmm ak salaam te ci mucc lépp bépp xeet ci am rek yàlla dina la muccal léegi ñetti aaya yooyu ngay bind muy laqad xaqal xawla ala aksarihim fa hum laa yu'minuun innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fa hiya ilaa al-azqaani fa hum muqmaduun wa ja'alnaa min bayni aydihim sullan wa min xalfihim sullan fa aqsaynaahum fa hum laa yubsiruun foofu nga yem nga bind ko juróom-ñaari yoon daf ko téere ndigg wala la ci mag ñu waxoon téere ndigg waaw tàkk ko incha allah yàlla dina la ci pexe nool dina la ci ay dina la ci nool muccal la ci lu bari. surtout nag ñu wax leen ni kii nga xam ne tukki takk ko yàlla dina ko muccal ba kenn du ko dogaale moo xam agression la moo xam xëy na euh, mën naam sax duñ ko wëlbati bu fekkee dafa a voyage ba muy def loolu mën naam sax duñ ko def fuule yooyu yëpp ci xeetu voyage la bokk donc kon loolu baax na di ko jël di euh, di ko defal njaboot gi surtout ñi xam xamante ni ñu ngi waaj a tukki wala ñu ci yu demee noonu donc te loolu lañ leen indi loolu di leen joxaat dig daje ci beneen vidéo wasalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh.